ngir ngay man jot vidéo yi am solo yi fi ci Xidma production da ngay fi ñu bind s'abonner et noppé tek ci cloche bi production la scène du mouridisme إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود كدري السلام عليكم ورحمة الله sëriñ bi nee na mi ngi nuyu detail teewlu ndax bis bi ma bis bu mag bi ñu jëm nu gàttandu bu baax a baax ci gën ci yeesal nag sunu lépp gën ci dëgëral suñu lepp màgg bu rëy mi ngi ci kanam. mu ne bis bu màgg bu rëy mi ngi ci kanam. boo xam ne sant rek ñu ci boo xam ne sant rek ñu ci war. cant gi ñu ngi koy ci sant sëriñ bi. cant gi ñu ngi koy tàmbalee ci sant sëriñ bi. santale ko santale ko. sëriñ bi moom. sëriñ bi moom. wàccoon ak njaboot gépp lu mat a def rek def na ko mat a def rek def na ko diggante mag njaboot gi lu mat a wax wax na ko digg mag njaboot gi wàccoon ak ñi mu seqal boromam ñëpp wàccoon wàccoon ak ñi mu seqal boromam ñëpp di yàlla yi muy malaayka yi ak yonent yi ak kilifa ya topp si ñoom ak ya ñi nga xam ne yàlla jox na leen seen xam ñuy jëfe seen xam-xam ñi mu bokkal boroomam yëpp wàccoon ak ñoom kon nun sunu borom def no defal tawfiq ju reey reey ndax boole gi nu boole ak mom eh, lol war warna tax señ bi bu ñu ni mu mel دیگه ما برامم لصوب سنو برام مدف کچی مام لو خمني خل منو کو دب والبتكوات فبعد لبم دلوك برامم wàccoog ñëpp. wàccoog ñëpp. ña fa borom kon loolu loolu war nañoo seetaat bopp bu baax. kon nag war nañoo seetaat suñu bopp bu baax. ndax tawféex ju rëy jooju ñu am. ak lu ñu ca lot lot lot. ak lu ñu ca lot lot lot. jéem koo jo delloo suñu lépp. jéem koo delloo suñu lépp. loolu nag. loolu nag. laaj na jëfe. laaj na jëfe. laaj na jëfe xel yi. tàmbalee ko ci leeral xel yi. nañ war gise gisee sëriñ bi. nañ niñ war a gisee sëriñ bi. sellal xol yi. sellal xol yi. ci nañ war a àndeek sëriñ bi. ci nañ war a mën a àndeek sëriñ bi. yokk yitte yi. yokk yitte yi. ca na mu ca na ware waree. am na kàddu yu ma daan junj ci jamonoy sëñ Sidi Maxtaar. am na kàddu yu ma daan junj ci jamonoy sëñ siidi Maxtaar. ci wàllu dëkk bi. waaw ci wàllu dëkk bi. ñi xam ne ñoom ñoo am tawféex ak dëkk ak sëriñ bi. ñi am tawféex ak dëkk ak sëriñ bi. ñi am tawfeex yaakaar sëriñ bi. ak ñi am tawfeex yaakaar sëriñ bi. di fi ñëw di fi ñëw. loolu nag ñaar rek ku sëq. loolu nag ñaar rek ku sëq. ci wàllu doxinu àdduna. wàllu doxinu àdduna. ñi nga xam ne ñoo fi dëkk. ñi ci ñi nga xam ne ñoo fi dëkk. war nañoo mën a doyloo sëriñ bi ci lépp. war nañoo mën a doyloo sëriñ bi ci lépp. wëlbatiku it nag nekkal ko. walbatiku it nekkal ko. luñ ca néew néew néew doole. luñ ca néew néew doole. ñu def ci seen lépp ñu def ci seen lépp. nekkal sëriñ bi ni mu ko ni li taxoon mu ñëw fii. nekkal sëriñ bi ci li taxoon mu ñëw fii. Eh, ñooy ñooy loolu ñooy ñooy ñi fi ñi ñi am tawfeex dëkk dëkk dëkk sëriñ bi. loolu ñooy mooy ñi nga xam ne am nañ tawfeex dëkk ak sëriñ bi. muy waa dëkk bi muy waa dëkk bi. ak ñi nga xam ne dañoo dëkkuñu ci biir dëkk bi. ak ñi nga xam ne dëkkuñu ci biir dëkk bi. tey dox yéen dox yéenu àdduna. tey dox dox yéenu àdduna. ñoom it dara warul leen. ñoom it dara warul leen. lu doyloo sëñ bi lu sëñ bi. sëñ bi rek moo leen fi war a andi. sëñ bi rek moo leen fi war a andi. man nee na mas naa koo wax. jamonoy sëñ Sidi Maxtaar. boobu euh, président Macky Sall mi ngi toog. mu ne fii. mu ne ko fii. kenn jëflewut kenn ku dul sëñ fii kenn jëflewut fii kenn jëflante fu kenn ku sëñ bi. kon ñaar ñooñu rek fi nekk. kon ñaar ñooñu rek fi nekk. ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoo dëkk ci dëkk bi. ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi. ak ñi nga xam ne ñooy wut wut si ci dëkk bi. ak ñi nga xam ne dañuy wut si ak wàllu ci dëkk bi. loolu nag mën nañu loolu ñëpp nag mooy mooy mën nañu ko delluwaat ci doxinu adduna. loolu lépp nag mën nañu ko delluwaat ci doxinu adduna. kon ñi fi nekk. kon ñi fi ne. dañoo war a doyloo sëñ bi rek dañoo war a doyloo sëñ bi rek. waruñoo jéggaani fenn. waruñoo jéggaani fenn dara. Eh, eh, ku fi nekk. ku fi nekk. te góorgóorlu bu baax te góorgóorlu bu baax. nekk nekkal fi sëriñ bi. nekkal fi sëriñ bi. ni mu ko bëggee. ni mu ko bëggee. mu waree noonu. mu waree noonu. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. sa tawfeex ji nga am. sa tawfeex ji ngay am. bay tudd sëriñ bi ñu dula tudd. bay tudd sëriñ bi ñu dula tudd. tawfeex joojee. tawfeex joojee. kanam rek lay jëm kanam rek lay jëm. adduna bari nay gàllankoor lool adduna bari nay gàllankoor lool. bari nay fitna lool bari nay fitna lool. bari nay.

bu dee ñi fi dëkk. bu dee ñi fi dëkk. war nañoo góorgóorlu bu baax nañoo góorgóorlu bu baax. nekkin wi nekkin wi. bu bu bu teguwul ci yoonu sëriñ bi. bu teguwul ci yoonu sëriñ bi. ni ko sëriñ bi bëggee ni bëggee. ak lu kër kër ji bari bari. ak lu kër kër ji bari bari. ñàkk barke rek la ñàkk barke képp ñàkk tuyaaba kon lan la ñuy musal ci loolu. kon musal ci loolu. ñu jéem a xam sëriñ bi. ñu jéem a xam sëriñ bi. nekkal ko ci lim bëgg. nekkal ko ci lim bëgg. sëñ bi nag bëgg. sëñ bi nag amut bëgg. benn boromam rek la bëgg. rek la bëgg. ak yonent bi ak yonent ak yonent bi nga xamante ne moom lañ ko digal moo ko jox ndigal. nee na sunu borom nee na bind naa doomu aadama ci bindin bu gën a rafet. waaye nag danaa ko dellawaat mu gën a suufe lool ba mel ni noonu musu koo mel. nan jéem a dégg a ay jooju bu baax. loolu moo nekk. ndax loolu moo nekk. dëgg la. dëgg la. yërmande yàlla yemut fenn. Eh, yërmande yàlla yemut fenn. mayeeg sëñ bi yemut fenn. mayeeg sëñ bi yemut fenn. waaye loolu la yàlla wax. waaye nag loolu la yàlla wax. bu ñu góorgóorloo. bu ñu góorgóorloo. dañuy dañuy dolli di dañuy dolli ku di wéy. na mu na mu gën a mate. na mu gën a mate. bu ñu góorgóorluwul. bu ñu góorgóorluwul. dañuy dellu gannaaw di dañuy dañuy dellu gannaaw di gën a suufe rek. loolu doomu aadama yëpp ko loolu doomu aadama yëpp ñoo ko bokk. kenn ëpp ci waaye kenn ëpp nu ci wàll nag. ndax sëñ bee ndax sëñ bee tax. na mu doxee diggante ak boroomam. na mu doxee diggante ak boroomam. jëflante koog ñi mu seqal boroomam ñëpp. jëflante koog ñi mu seqal ñëpp. ñëpp mu wàcc ñoom. ñëpp mu wàcc ñoom. dox leen seen àq yi ba mu mat sëkk. dox leen seen àq ba mu mat sëkk. mu dellu ci fa boroomam. mu dellu fa boroomam. loolu. kon loolu war nañoo xoolaat suñu bopp. waaw kon nag war nañoo xoolaat suñu bopp. dëkk bi dëkk bi. bu nu góorgóorloo bu nu góorgóorloo. nekk fi ni ko sëriñ bi bëggee. nekk fi ni ko sëriñ bi bëggee. texeeg adduna ak alaaxira rek la ñuy andil. texeeg adduna ak alaaxira rek la ñuy andil. defarug biir ak rek la ñuy. defarug biir ak biti rek la ñuy andil. mucc ak tey ëllëg rek la ñuy andil. buñ ko deful nag buñ ko deful nag. lu ci waay gis. lu ci waay gis. bu mu ko bu mu ko bu mu xam ne moom moom na xam ne moom moom càggante rek la càggante rek la. kon loolu. kon loolu. war war nañ ko jéem di ko di di ko di ko di ko di di ko fàttaliku waxtu wu nekk. kon loolu war nañ di ko fàttaliku waxtu wu nekk. di ko jéem a dund. di ko jé jéem a dund. di jéem a nekk. di ca jéem nekk. sunu kem kattan sunu kem kattan. yëngatu boo xam ne nag. yëngatu boo xam ne. ñàkk barke rek moo ciy mujj. ñàkk barke rek ciy mujj. ñàkk tuyaaba rek moo ciy mujj ñàkk tuyaaba rek ciy mujj. gàcce rek ciy mujj. gàcce rek ciy mujj. gàcce ak gàcce. ga gàcce ak gàcce. moom rek ciy mujj yooyu rek ciy mujj. yal nañu ci yàlla musal yal nañu ci yàlla musal amiin amiin. kon nañu góorgóorlu. kon nañ góorgóorlu. lu baax ak lu bon rek fi nekk. lu baax ak lu bon képp fi nekk. góorgóorlu ci suñu kéem kattan. góorgóorlu ci suñu kéem kattan. ne ci lu baax ne ci lu baax. di wéy ci ndigal di wéy ci ndigal. suñu kéem kattan suñu kéem kattan. wattandiku tere wattandiku tere. di bëgg lu baax di bëgg lu baax. te yàlla rek tax te yàlla rek tax. di bañ lu bon di bañ lu bon. te yàlla rekk tax di def lu baax di def lu baax. te yàlla rek tax. loolu mooy sunu sunu warteef. loolu yi mooy sunu warteef. loolu mooy warteefu ñi nga xam ne am nañ tawféex nekk ci dëkk bi. loolu mooy warteefu ñi nga xam ne am nañ tawféex nekk ci dëkk bii. tawfeex ji tawfeex ji mën nay dolliku di wéy tawfeex ji day mën nay dolliku di wéy waaye mën nay wàññi ko ba jeex tàkk ñi nga xam ne nag dégg nañ sëriñ bi dégg nañ sëriñ bi ñi nga xam ne dégg nañ sëriñ bi ñàkkul luñ ca xam ñàkkul luñ ca xam ci doy gu sëñ bi doy sëkk doy gu sëñ bi doy sëkk doy nu doy nu tey ëllëg doy nu tey di fi ñëw ñooñu di fi ñëw di wut si wàll. di fi wut si wàll. fu ñu ko wut fu ñu ko wutee wutu kudut sëriñ bi. fu ko wutee kudut seriñ bi. fudut ci sëriñ bi perte nañu perte nañu. waaw kon ñaar yooyu rek fi nekk nag. ñi fi nekk ñi fi nekk. nañ doyloo sëriñ bi nañ doyloo sëriñ bi. nekk ci seen nekk nekk seen diine. nekk ci seen diine. seen kem kattan seen kem nekk ci seen taalibe nekk ci seen bëgg lu baax. nekk ci seen bëgg lu baax. seen kem seen kem kattan. di jëfandikoo makaarimul axlaaq di jëfandikoo nag makaarimul axlaaq jikko yu rafet yi ak yu baax yi waaw jikko yu baax yi jikko yu baax yi mi ngi ci nun jikko yu bon mi ngi ci nun jikko yu baax yaa ngi ci nun jikko yu bon yaa ngi ci nun ñu doon jéem a góorgóorlu di xeex ak xeex jikko yu bon ñuy jéem a góorgóorlu nag di xeex ak jikko yu bon yooyu di di jéem a góorgóorlu di jëfandikoo jikko yu baax di jéem a góorgóorlu di jéem a jëfandikoo jikko yu baax yi noonu rek noonu rek moo moo moo moo moo nuy musal moo nuy musal moo nuy may jàmm moo nuy may jàmm mooy woyefal fitna ji mooy woyefal fitna ji. loolu buñ ci nekkee. loolu buñ ci nekkee. saadatu daara yi rek la ñuy indil. saadatu daara yi rek la ñuy indil. saadatu daara yi nag. saadatu daara yi nii muy tex ak tey la gën a yomb ëllëg la gën a yomb. ëllëg la gën a yomb. boo amee njëg yërmande suñu borom njëgalam rek foofu mu jeex tàgg. boobu foofu moom boo amee njëgalu suñu borom ak yërmandeem rek mu jeex. fii nag fii nag. da jëf dangay jëf. di jariñu di jariñu. ba yëg ne yaa ngi jariñu. ba yëg ne yaa ngi jariñu. ba yëg ne yaa ngi yaa ngi gën a mucc. ba yëg ne yaa ngi gën a mucc ba yëg ne yaa ngi gën a texe. bëgg yaa ba yëg ne yaa gën a texe. loolu ci dund gii rek. loolu ci suñu dund gii rek la nag. ku ci bëgg jàmm nag. ku ci bëgg jàmm nag. bëggal sa bopp jàmm bëggal sa bopp jàmm. bëgg bëgg a noppalu. bëgg a bëgg texe. bëgg texe. da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay su da ngay da yoonu sëriñ bi. da ngay sóobu yoonu sëriñ bi. ngay sóobu yoonu sëriñ bi. ngay sóobu yoonu sëriñ bi. Hmm. ndax bi gisul dara. ndax sëriñ bi gisul dara. lu dul borom ak yonent bi mu ko tegtal ak yonent bi mu ko tegtal rek. kon eh, am nañ tawfeex ju de. kon de am nañ tawféex ju rëy de. mën nañoo am xéwal gu rëy nag. mën nañoo am xéwal gu rëy nag. fii ci dundug adduna gi fii ci dundug adduna gi. ak dundug alaxira gi di ñëw. kon ñun ñi fi dëkk. kon ñun ñi fi dëkk. nu góorgóorlu bu baax. bu nu góor nañ góorgóorlu bu baax. kem kattan kem kattan. alhamdulilah rabbil alamin suñu borom moom ginnaaw boo boo boo jógee. boo boo boo boo boo seetlee rek moom mu xas wuuti la. ndax alhamdulilah rabbil alamin bi nga xamee ne suñu borom moom. boo waaxoo jëm ci moom rek mu waaxu jëm si ci yow. loolu moom mooy boo jógee jëm ci moom rek mu gàttandu la. boo jógee ci moom rek mu gàttandu la. na jógi dëggu rek na jógi dëggu rek. na dëggu rek na dëggu rek. kon loolu mooy suñu warteef. kon loolu yi mooy suñu warteef. ku fi mën a ñëw itam. ku fi mën a ñëw itam ak fu mën a jógee. ba ñëw Touba sëñ Touba képp la fi indi. bu fi jéem a wut dara rey dara rey adduna. bu fi jéem a wut dara rey adduna. yemale ko sëñ looy wut rek yemale ko sëñ Tuubaa lu ko may pertement rek lu ko may pertement rek lay leen ah, ñi fi nekk doyloo sëñ kon ñi fi nekk doyloo sëñ Tuubaa ñi fi ñëw di wut si sëñ Tuubaa ñi fi ñëw di wut si sëñ Tuubaa loolu yi rek mooy jàmm ji waaw ñi fi nekk doyloo sëñ Tuubaa ñi fi dikk di wut si sëñ mm-hmm. waaw rek mooy mbir mi ñun fi nekk nañ doyloo sëñ Tuubaa ñun ñi fi nekk nañ doyloo sëñ Tuubaa pexe yeeg yooyu yëpp. yooyu yëpp amul benn njëriñ amul benn ca gàcce rek lañu xalaat xaraab xaraab rek xaraab maanaam dem ba nga xam ne lépp day gent rek yàqu. maa ngi leen góorgóorlu bu baax. góorgóorlu lu baax. kon alhamdulilah mën nañoo dellusi kon alhamdulilah mën nañoo dellu si. ci waajtaay bi ci waajtaayu. bis bu mag bii di bëgg a ñëw.

kenn ku ne ci nun nag. kenn ku ne ci nun nag. feeg bis ba feeg bis ba. képp bépp taalibe. bépp taalibe. képp ku bëgg sëriñ Tuubaa. ak képp ku bëgg sëriñ Tuubaa. na nga am pësteefu. na ab kaamil. jàng ab kaamil. tàmbalee ko cant gi. tàmbalee ko cant gi. cant gi ñuy war sant sëñ Tuubaa. cant gi ñuy war sant sëñ Tuubaa. ak di ko santale. ak di ko santale. kenn ku ne. kenn ku ne. na jàng am pësteefu. na am pësteefu jàng ab kaamil. boo ko mënee boo tàmbalee ko cant gi. tàmbalee ko cant ak cant léegi. ak cant léegi. ku ku ku ku yàlla dogal mënoo ko. ku yàlla dogal mënoo ko. am na ñu ko mën ca sawet. am na ñu ko man ca sawet. nga nga nga seral ku la ko jàngal. nga seral xol ku la ko jàngal. loolu yaakaar naa ñëpp loolu ñëpp mën nañu ko ko def. loolu defe naa yaakaar naa ñun ñëpp mën nañu ko def. yomb na lool yomb na lool. te jëf ju rëy la. te jëf ju rëy rëy. mën naa defar lépp mën naa defar lépp. noonu rek la demee kon noonu rek la demee. ñu góorgóorlu bu baax ñu góorgóorlu bu baax. alhamdulilah rabbil alamin la in shakartum la azidannakum fekk yéen a ngi sant rek muy dolli. Ah, mhm. kon gannaaw bis bu mag bii di ñëw. kon nag gannaaw bis bu mag bii di ñëw. benn bis bu ko kawee. benn bis bu ko kawee. te cant rek la. ndax bisu cant rek la. Ah, nan ko waajal bu baax ko waajal bu baax a baax a baax a baax. lenn lenn luñ mën a dolli ci cant gi nag. luñ mën dolli ci cant gi nag. ci xeeti yu baax yëpp. ci xeeti yu baax yëpp. luñ ca mën rek luñ ca mën rek nañ ko def. noonu rek la demee noonu yi rek la demee. ñoo ngi sant ñëpp nag. nee na ñoo ngi sant ñëpp nag. Eh, jaam bi moom ba mu xamee ne jaamu boromam la. moom bi mu xamee ne jaamu boromam la. am

nan gën a yeesal sunu jaayante gën a dëgëral sunuy laxasaay gën a dëgëral sunuy laxasaay gën a sóobu sëriñ bi gën ko jublu gën koo jublu suñ lépp na jëm suñ lépp suñ lépp na jëm foofu loolu ci tawfeex ju rëy lay jógee di xew xewal gu rëy rëy rëy at googu àdduna ak alaxira kon nan sant yàlla te góorgóorlu rek jërë ngeen jëf barakallah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu bàyyi ko sëñ Bass kàddu gi. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala ci ndigalul sëriñ bi ñuy àggale tuuti ci kàddu yi rek ci ndigalam ndax boo xasee ba yëkkati kàddu passif muy waatu di waxaat ci ginnaawam kon ci ndigalam rek ak ci barkeem di. ni ko sëriñ bi waxee léegi rek mooy di fàttale ñëpp bis bii nga xam ne moom lañ dëgmal mu war a dëppoog alxames fukki fan ak juróom weeru safar dëppoog fukki fan juróom ci weeru septembre wi. sëriñ bi mi ngi koy fàttali bokk jullit yëpp di ko fàttali bokk taalibe bi yëpp di xam ne ndigalu sëriñ Tuubaa la loo xam ne moo waxoon ne na ko ci ñëpp sant la yàlla muy loo ne moo ko daan def. sant santoon ko taalib yëpp wax ne képp koo xam ne mbégam sa bu Yuusufu agsee na nga ko ci sant la yàlla li tàmbalee ci ganaar ba ci gileem kon loolu mooy li ci sëriñ bi santaane woon li ci des sëriñ bi wax na ko léegi mooy digal ne ñëpp ko képp koo xam ne taalibe nga wala ngay ko bëgg sëriñ bi nga jàngu kamil sant le sëriñ bi boroom sant sëriñ bi waajale ko bis bi loolu nag ni ko sëriñ bi waxee mën naa defar lépp bu ko tuddee ci wàllam ñëw rek kon nañ gém ne suñ lépp mën na cee defaroo kon nag ñuy ñaan ñu àgg cee bis ba ak xam ne biss la boo xam ne bis bu ko ëpp amut ndax sëriñ bi dafa waxoon ne suñ ko daa ci ci daa teg ay nattu ba bis mujj ba ba nga xam ne nattu yi jeex na suñ borom xamal ko ne ko nattu yi jeex na sakk yi ci des bi fi saa su ak seetee ñi nattu yi daa toll rek ni la xew li toll saa su ak kenn ku ci ne. na xéewal gu ko borom doon defal dana ko fulaat ba mu agsi sëriñ bi waxoon ne eh, bis bi buñ demee ba ëllëg suñ borom mi nga xam ne moo bindoon adduna bind guddi bind bëccëg ci kattanam ndax nee na ay bis amu fa waaye bu ñu agsee ci bis ba màggalu tubaan daan xew ca adduna kenn ku ci ne da ngay xéewal gu dolli ko ci yow daana wax itam ne ñaar buñ dendee kii di ko màggal kii di ko ñàkk a màggal waxtu nekk ci res di seen lu ko lu ko moroom ji di tiime kon nag bis bi mooy suñu lépp mooy suñu defarug àdduna ak alaxira te sëriñ bi moo bindoon te dara gën te wir ay waxam wax ne sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafihan li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi muy li li doon saw wustu kéem bii nga xam ne moom la ñu màgg tey du dara lu may ñaari yëf benn bi mooy daraja ji suñu borom bëggoon mu am ko te mooy al abdul xadim ba ca desit mooy an akoona shafian li xaw mi an akoona xaadiman fi daw mi mooy xettali xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gi nga xam ne wax na ne bu demutoon ci tukkeem ba ñëpp daañu tabbi sawra kon nañ xam ne bis bii mooy suñu lépp kon ñuy ñaan ñu ak ja jàmm te suñu borom yàggal fi sëriñ bi dëgëral taxawaayam ba ni mu siggale lislaam siggale ko yoonu murit ba la Serigne Touba waxoon ne bokk na ci mandarga mandargam texe mooy benn xool bu baax du ko du ko delloo Serigne bi yàlla def na ko ci moom wa min shahaadatil xata xaysu qasat ay laa yurdahu fa adushir asad kon nag suñ yitte yëpp mooy ñaana ko mu yàgg fi ba mu yéenee liggéey Serigne Touba ci lépp bëgg ñëpp defaru li muy wax ne li ma yéene sama bopp laa yéene yëpp fenn ci biir kàddu yi mooy bu soñoon ñëpp defaru bu soñoon ñëpp euh, dëddu àdduna sànni ko te dégg man Serigne Touba ndax xam na loolu mooy suñ njëriñu tey mooy suñ njëriñu ëllëg kon nag la waxoon rek xool leen ci man ñu ñëpp man nañ maase xool ci aw doxinam mënuñu mënuñoo teg fiñ teg suñ tànk fi ko teg nag waaye nañ ko jéem a roy buñ ko jéemee roore duñ àgg fa mu woon waaye yàlla mën nañu ci xettile ci loolu ndax moom kat yàlla defal na ko tawféex ndax ni ko waxee woon boppam ba mu jugee rek la dëddu àdduna sànni lépp dëgg ma Serigne Touba loolu nag ba nëgg ni kon la Cheikh Ibrahima Fall daa wax Serigne Touba rek boo ko Serigne Massane wàccee mu ne ko Mbàkke de du ma ndax yaa ñu njëkk a xëy ci toolu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam te ma nëgg ni ko kon na ko xool ci moom. fi mu toll te waxtu nekk boo ko gisee mu gën laa farlu ëpp la yitte ëpp la taxawaay loolu ñu topp ci ginnaaw ñëpp war nañ cee laxasaayu roy ci moom ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yasamini llahu inda jeewali iblisa id naadaytuhu biya wali nafa